dañ am ñu doon àndal am ay mbokk am ci seen mbokk yi ñoo xam ne ànduñoo ñoom bu leen foog ni Macky Sall ay frère am ay yëg sœuram cousine am yëpp dañu ànd ak moom de déedéet am na ay xaritam yoo xam ne ay rebelle ay rebelle lañ dañuy rebelle wu ànduñu dara ci lu Macky Sall di def ànduñoo ak moom ci am na ay cousine Marème Faye yoo xam ne ñoom Marème Faye duñ jaarandoo am na ay cousin Marème Faye yoo xam ne ñoom moom ñoom Marème Faye duñ jaarandoo taal ay cousin akkan ay mbokk yu jege xam nga foofu boo fi infiltré rek jeex na ñooñu dañ lay tagal ñii bëj te ñooñu mënuñu ñoom Marème Faye ak ñoom Macky Sall mënuñu saf ñooñu dara parce que xam nga waaye waaye duñu tus xam nga imagine toi benn nit boo xam ne mu ngi yow juddoo sa kanam màggee sa kanam ñëw xam nga ñu def ko président muy fu ñaaral Macky Sall mun naa fu ñaaral ba ñëw ci yaayu Marème Faye Oumy Diallo naan dafay fu ñaaral imagine leen rek ma Macky bute mun na butte bucc ci ko ba ñëw ci ko ci jàkkaarloog yaay maram fay naan doy ñëwee ko <laughs> kooku nag yow xamoo sa xetu ngem wala sa université ay ah, yow yow fuy nga de yow Macky yow yow yow xam nga sa xetu yow yow commencé ko ñum gang ba ñëw di doxaan def kan Macky Sall fit ñi ma wuloon face face ak sax gang la doon def gang lañ doon gang lañ doon ñëwee di doxaan gang xam nga gang rek jamono yooyu gang boo xam ne gang bi yëpp dañ lay wër kii di no lekk sa nopp gauche bi kii di nopp ay imagine toi dix góor yu wër benn jigéen waaw kii moom nu la bëggee ki naan non kii moom noon man wan kay mënatuma nalaw ndax chaque jour mu naan mu may woo naan ma daf la bëgg kii naan coo sama waaye sama copain moom xam nga mënu la ko wax mais le cœur a ses raisons que la raison ignore naan ngi naan ma sax même si tu étais une fleur il va t'arroser avec de la limonade bien fraîche kii naan la mooy duul ko gang gangu duulkat yooyu noonu Macky Sall bu doon doxaan sax gamu duul kat la doon andal yum kan sax gang kan kan gang yooyu pour bu ñuy dem ci Marème fay xam nga rek affaire yi ñun ñun yoy lañ doon def nek ci bop ko buntu kër gi woote gaay dem woo ni gel bi xam nga ñu dugg xol dañu ko copain copain lañu ñëw ah, am ngeen glace waaw ah, glace nga pisaale gel bi nga nga piis gel bi gel bi ah comme <laughs> taxaw taxawal nga genn mel ni kuy jënd glace glace bi doyoo ko dara sa copain nek ci biir ak gang ba nga genn glace beug ñun non lañ doon doxane genn glace bi euh, euh, des fois ñu jaay ma glace genn après gel bi tok ba xara ma dem jëndi dara boutique ba fekk pas allemand lañ yor wala mère Oumy Diallo maanaam fay genn xara ma dem jëndi dara boutique ba sax man fàtte won na sama crayon bi dafa jeex sama combi genn fek ci gars daw ci bopp koñ bi ñëw commencé tokan fo ratata ratata sam papa ñu ki kii de maa ngi bëgg a yàgg de yooyu noonu xam nga ko yone nañ copain mu opère ñun non lañ doon doxane yoy yëpp ñom Macky Sall noonu lañ doon doxane ñu ñu fekkee suñu génération yo xam ne ñun non lañ doon doxane quoi affaire da gang la da ngay da ngay ñak fit da ngay and ak yenen gaay ñu xam ki opéré inter intercepté ñee dóor xam nga wax ji bari ci nopp gel ba bu gel ba mir non lañ koy defee xam nga gel bi tamit moom une deux mu neen xaar lan ma waxtaan ak sama ndegenaay suñu kee suñuy temps nag gel yi dañ cee gaaw ndegenaay xaaral ma waxtaan ak sama ndegenaay may ma tuuti ma waxtaan ak sama ndegenaay <laughs> man rek ndegenaay moom kañ la nekk nit waxtaan ak ndegenaay ba ndegenaay la di waxtaan ak yow man gel yi ñun sañ suñ suñu temps tam gel yi ay ngaaka dëgg la ñoon waxtaan ak sama ndegenaay xaaral ma waxtaan sama ndegenaay man xam nga donc loolu moo tax ñoom mara moo tax il faut ngeen xam benn affaire quoi fii réew mi ñoom Marème Faye ñoo ko yor ñoo ko téye si loxo di ko domte di ko bougeloo nu mu leen neexee di leen di ko bougeloo nu mu leen neexee di ko doxalee nu mu leen neexee il faut ngeen xam loolu tamit quoi il faut ngeen xam loolu ñun amuñu benn intérêt di ñëw di leen wax loo xam ni suñu life xaj na ci xam nga suñu vie xaj na ci suñu lépp xaj na ci tu vois mais dañ gëm ni yàlla rek moom lépp lu am rek suñu borom la neex na lu ñun gëmuñu ñun ragaluñ leen gëmuñu nit ñoom mun nañ munal nañu nix gëmuñu loolu ñu ngi dund seen paradise ay Sénégal wéy kii moom mënul ñëw Sénégal what the fuck Sénégal mais man bugg naa est-ce que bëgg naa ñëw ci Sénégal bu dëri boobu jamono jii Sénégal bu salte boobu noonu bu ndox mi di nangu kër yi bu inondation bi bu amul ngeen problème mu lekk amu leen ceeb amu leen diwlin seen lépp cher mais est naa ñëw ci Sénégal boobu jamono jii non du ñëw Sénégal si dama ñëw Sénégal <laughs> mais bu ma fay ñëw damay ñëw ci Sénégal bi ma bëgg Sénégal bi may rêvé mais man bu ma ñëwul Sénégal nii ban njëriñ la ma amal mais sama fokkin dóob yëpp dañ koy lekk mais <laughs> dañ koy lekk bu ma ñëwul Sénégal yi xoolal man maa leen di jëriñ mun leen ma jëriñ mais. lu ma fay def mooy taxawaalu teg bopp koñ teg samay kii dóor am samay gel yu may iri dóor bàcc génn solu càng ki waay yooyu mais moor may ma dàll yi ma kajj la dàll yi non mais may ma mbubb mi soxla mbubb mi non mais may ma tubéy jox la tubéy ji xoolal ngeen futti ma ba ma set mais loolu la <laughs> mais loolu moo amul leneen lan ba njëriñ ngeen ma amal ma nii la ñëw Sénégal la ñëw lu may def Sénégal ma toog foo gis gën mais lan laa def Sénégal lan laa fay def lu dul ngeen lekk ma boo ñëwoon tey dangeen may ñaan ay dàll dangeen may ñaan ay kawas dangeen may ñaan ay caleçon dangeen may ñaan ay yére man amu leen lu ngeen mun a lu mu mun a yokk mun leen ma yokk tous ndax yoru leen dara dangeen may ñaan xaalis man maa fa investir what the fuck lu may doy Sénégal jamono jii mais fii bu mel noonu soxlawuma ko maa ngi fii di dund sama paradise you know di dund sama paradise dinaa bàyyi live bu neex bi nii nii di ñëw Sénégal what the fuck jour bu may ñëw Sénégal Sénégal day neex Senegal, day nice Senegal, day bah. day am justice nga xamni damay dox nu ma nexé di wax luma nex. jour may ñew Sénégal damay ñew xolal di ñaap. di ñew di dugg fuma nex di wax luma nex. mu am justice am démocratie am liberté <laughs> Sénégal bobu la soxla ma soxla wu bi Sénégal fokkoo la ya mais lu may def Sénégal jamono ji. na ñew Sénégal na ñew Sénégal Way Get the fuck out of here. oh my god loolu <laughs> la yàlla di may dund bu neex bi air bii xoolal air bii ngay eh, neex la xoolal doo ñàkk air bi neex bii ah, taaluma dara yor sa big house di live alone yor sa big house di lekk ba suur di naan ba màndi doo dox ci poto poto doo dox ci ay ay lu mu tuddati ay inondation you know ñu tegal la ay bis yu tooy tegal yu taxaw immeuble yi tiim la mais man nga ne ma bàyyi lii ñëw Sénégal what the fuck for what for what di liggéey ñu lay fay laaru doo ma ñëw Sénégal for what for doing what lan laa fay def pour lan lan for kaar here picc bu làkk ci taat day bëgg morom fu ne nii soxla wuma Sénégal man I don't need Senegal. at this moment man yeah soxla wuma Senegal man may defal Sénégal may def luma man mang koy xeexal mang koy waxal man may gar sama bakan pour mom tax ma fay ñew pour ñew pour lan pour bullshit yi am ci man deug ah jaay ma doore fofu non non fi lay tok di len ko nokko <laughs> fi lay tok di len ko nokko mu len di saf metti len yam problème nalaw yee <laughs> li kay mu dakk lo gis ma ngi dund easy ma nice ma paradise life ba pare di len day est-ce que xam nga man ci ñoom laay puub saa su ne saa yu ma soxlaa puub rek tàllaay bi puub ci kaw Mansour Faye ba mu tooy puub ci kaw Diaw ba mu tooy puub ci kaw Macky ba mu tooy ñuy fomp rek di fomp may may biir guy daw seen kaw ñuy pomp rek <laughs> mais lu dàq loolu saa yu ma lekkee fii ba suur ñëw rek taal sama laay day ci kaw Macky Sall ay biir buy daw mu doon xet mu koy fomp du ci mun dara di saaga tax booy bi moo koy jàppale non mais booy bi saa yu safee day rek ñëw day sama kaw quoi ñëw booy bi dinaa ko doo ko def dara <laughs> loolu la saa lekkee fii ba sama biir fees naan sama sedd ñëw rek xoolal def ni ubbi tuwéy ji rek ne kii yàlla Mansour day ko ba mu tooy proj proj proj proj proj taxawaat fomp mu tax booy bi dinañ tax tax ma booy bi ah no baby to me to baby my baby baby am nañu def ñuy tey rek soo xol yi di dagg soo xol yi di dagg soo waa ji man dinaa bàyyi loolu noonu di di di ñëw Sénégal pour lan fii kay laay toog di leen saw saa yu ma soxlaa saw sen seen kaw saa yu ma soxlaa day day seen kaw ay biir buy taw toog jàpp sama lees you know voilà quoi seen rêve yooyu bàyyi leen ko noonu na ñëw Sénégal non bu ñëwee Sénégal xam waxu leen ca xaj jox ku leen ca xaaj oh what man that's crazy man de bullshit yeah lépp lu ngeen xamul senegal ñun nañ leen ko xamal lépp lu fa nëbbu dinañ ko kalaate lépp loo leen xamul ko xam lépp lu nëbbatu dinaa ko kalaate loolu moom takk takku leen ko téere tout dinaa ñëw ci opération rëbb dëmm seen président assemblée national bi xanaa xamu leen président assemblée nationale am na frère frère bu mu bokkal ndey ak baay comme chaque jour ma koy waxee boo xam ne moom lañ jox mooy gérer ay affaire u lak ay affaire yooyu mu ngi dóor ay millions moom tamit booy boo xam ne mu ngi dóor ay millions ci kaw Sénégalais yi billaay wallaay toog fu mu toog yéen gis kii directeur SAPCO la woon directeur SAPCO sàcc rek xoolal petit code bi yëpp la sàcc seen président assemblée nationale bi petit code yëpp la xott sàcc na lépp ba ñu muy liggéey liggéeyloo sax dañu am problème mu salaire moom nii seen président assemblée nationale ay dossier sur dossier boo leen demee ci OFNAC bi épinglé nañ ko UGE bi épinglé nañ ko petit code yëpp la taje la rajaxe rajaxe petit code yëpp la taje président assemblée nationale bi toog frère am ci boppam moom lañ jox ay les lacs et les cours d'eau affaire booy boobu tamit ay millions lay toje ay millions lay toje famille bii famille Faye Sall bii non day jeex famille Faye Sall Timbo Gassama yii non day arrêté il faut ngeen xam ni ñii ñoo yor réew mi keneen yorul réew mi waa fay sax dama waa waa Sall sax dama leen ciy tooñ ñoom Macky sàll rek moo leen ci kii mais Macky Sall moom jëkkër joo xam ne dañ dañ ko takk ci ci bakkan dañ ko takk ci bakkan voilà fu nekk nii Marème Faye fu ne nii bu ma dekkiloon connexion ñi wax ak ñoom buggu ministre ma Marème Faye mun def ma ministre parce que Marème Faye ku mu bugg nga doon ministre nga doon ministre ku mu bugg nga doon maire nga doon maire ku mu bugg nga doon député nga doon député Marème Faye mooy buuma di bummi di fal di folli te buy makki naa un an mu ne xaar ma woon umbi de maa ngi woo maire umbi de maanaam <laughs> grave <laughs> dinaa ko def mais Marème Faye dama sonal quoi saa yu nga ménage naa ma di nga woo Oumy Diallo Oumy moom xam nga dafa may saaga ndey rek quoi sa yaay jooju dafa may saaga ndey. nit ñi xool maram na waaw ah, na <laughs> <laughs> lu <laughs> bees la damay woo Oumy de waaw d'accord xaaral dugal ko ci liste bi noonu la Macky Sall di dundee. moom dañ ko accaparé moom gaale boobu dañ ko accaparé te pourtant am nay frère de frère yi doonul dara am nay sœur sœur yi doonuñu dara ñu am moom ay mbokkam ni côté mbokkam am na ay cousin ak ay cousine ñëpp doonuñu tous <laughs> yàlla bu am jabar yu mel noonu jabar yoo xam ne jël lépp accaparé yow ak sa yaay yow ak sa yaay ak say mbokk jabar rek accaparé lépp awma fa dara samay frère mënuñu am dara samay cousin mënuñu am dara mënu tous dara mënuñu koo am dara dara dara mënuñu ko am ngeen jël lépp lépp lépp lépp na cousin quand même maram doo may Macky Sall ay cousin sax tuuti ngir yàlla à ay xaritam yow mu nekkaloon lycée daal moom amul dara mayoo ko dara lépp yow ah foqale nga de man foqale nga tey maram waaye ñu dóor léwal bi waay ñu dóor léwal bi waay tey maram tey ku nekk mbokk maram boo rébellé wul moom da am moom mais maram tamit famille famille côté famille euh, papa dafa bëri ñu rébellé wu. parce que famille boobu moom vraiment Oumy Diallo ko tas mais Oumy Diallo moo ko tas te dafa dafa ci nopp ñu ma expliqué lu ko jëlee Kaolack nee naa leen mais Oumy Diallo bu muy ñëw Kaolack moom ca marché bu ndaw fi marché bu ndaw boo demee Kaolack ca marché bu ndaw famille ñoom Marème Faye seen baay fa la dëkkoon. côté boobu la dëkkoon mais Oumy Diallo foofu la séyoon ca marché bu ndaw xam na bu baax marché bu ndaw mère Oumy Diallo yaayu Marème Faye Sall xam na marché bu ndaw bu baax Médina Sabax Médina Sabax la la Marème Faye Sall mii juddoo Kaolack ca Médina Sabax Médina Sabax ndaga ndaga cosaan la Marème Faye moo tax mu mun a fecc ndaga te xamu leen lu tax Médina Sabax la juddoo juddoowul Saint-Louis bu leen Marème Faye ñimee taxaw naa leen Saint-Louis la juddoo musuma ko dégg mu wax ko ne bés bu ko waxee kàcc na fen na Médina Sabax la juddoo ca kaw bu leen fàttee ndaga ndaga cosaan la bu leen ndaga ndaga cosaan la foofu la juddoo moom Marème Faye Sall mii ndax baayam da doon liggéey ca onkat onkat yéen a ngi fàttali onkat jamono ju njëkk ja suñu papa yi xam nañ li may wax onkat kon foofu la yaayam yaayam eh, infirmière la woon jóge Saint-Louis ku ndaw ñu affecté ko première liggéeyam Saint Kaolack ba mu fa ñëwee nag marché bu ndaw ba mu gisanteeg aas fay di bàyyi maram fay ñu bëggante bëggante mu takk ko ñu indi ko foofu noonu ak la famille kan fële ca kaw ñu indi ko euh, marché bu ndaw googu noonu ca kaas naak fu ñu fu ñuy rabee ñun ñun xam nañ de parce que ñun kër gi kaas naak lañ dëkk marché bu ndaw mu ngi nekk kaas naak ginnaaw kër ñoom kilifa mooy marché bu ndaw c'est à deux mètres maram fay foofu la yaayam doon sëyee ak aas fay bàyyam newoon ca onkat xam nañ de kon ummi la la génne foofu xam nañ ko de ñun booy Kaolack yi xam nañ ko de la la fa génne duñ ko wax nag dafa ëpp ci dégg ci nopp waaye loolu warut a tax même malgré que après loolu génn na la fa mais am nga fay doom warut a tax nga tas njaboot gi bàyyil xale yi dem. xam nga bu baax la may wax nag bu ma waxee rek ma je suis j'en suis sûr et certain am na histoire boo xam ne ko waxoon fii léegi-léegi Marème fay daw wootee foofu encore kii bii moom wallaahi yaa moo bii moom parce que nii ak nii moo tax loolu moom dama koy téye ngeen baal mais dama koy téye parce que bu ma ko waxee rek dina woote foofu mais moom xam na en âme et conscience li ma koy wax xam na dama ne ummi jàllo yaay Marème fay bàyyil xale yi bàyyi ñii newatuñ sax ay xale ay paa lañ bàyyil paa yi ñu dem relier ay relation ak seen famille papa bàyyil ñi ngay accaparer jël leen tasaare leen xaajale leen ñoom ak seen i waajur bu góor ndax bu doon yow kese doo jur ñoom Manam fay doo jur ñoom Ibba Faye doo jur ñoom Mansour Faye et cetera et cetera voilà am na foofu noonu xam nga li ma lay wax voilà loolu. même bu dé problème personnel la man dama kay wax parce que famille bi dañ ma ci a dugal dañ ma ci dugal donc bu famille bi togué di metti lu ben affaire yoon la man xamna am nañ yaakaar ne man porte porteur de voix la bo xam bu ma waxee mun naa boole famille bobu non est ce que comprendre ngeen luma ma bëgg expliqué dinaa leen dama infiltrer sen famille sen famille yi tam amna yu leen di metti yo xam dañ ma kay wax yo xam ni ñom ñu ko dañ ma kay wax kon man tam yoon la en tant que jullit en tant que musulman en tant que euh, ku ku ku gëm diiné ma gis famille buy tasaaroo ndax ab nit bu fa nekk di tasaare ma taxaw boole leen waat ñu ñu nekk maanaam maram bul fàtte say roots bul fàtte fa nga juddoo bul fàtte fa nga bàyyeekoo bul fàtte say cousin ak say cousine bu leen toog rek jàpp beew jàpp ni ñoom ñoo war a ñëw ci yéen déedéet déedéet parce que da ngeen di toog jàpp ni yéen léegi yàlla may na leen léegi yor ngeen léegi détourné ngeen ay euh, l'argent du contribuable léegi détourné ngeen détourné ngeen les deniers publics léegi ñoom ñoo war a ñëw déet am na ñoo xam ni boo yoroon ay milliards ñu la cogg am na ay mbokk yoo xam ne ay milliards la ñuy yor ba suñu jonn yàlla tey mosuñu maa gis ma teg fa tànk man mii man man maa ngi fàttali mos ma yónni sama benn nijaay boo xam ne amoon fi ay milliards milliards milliards milliards di seeg sama benn cousine sama cousine bi waroon dem ñu ñu séparé wu waroon jël ration alimentaire yónni ma fa sama cousine moom moo mag yónni ma fa ma dem fa pour dem jëli ration ba fekk ko bureau ba gars yi toog affaire yi muy jéem a nguttal di romb ka ñëw wa ça va yow dina nangam nangam commencé waaw ma ñëw waaw yow yow laa xaar de non non bu ma taxaw ma ne ko mais. lan mooy bu ma taxaw bopp léegi maa ngi toog fii de secrétaire bi téye ma fii yow dèjà yow yaa respecté naa bureau fii ma ñëw ok yow yaa ko moom am nga say secrétaire am nga lépp mais man sama mbokk nga yow xam nga ni man faalewu ma la yo xam nga ni yow say milliards man dund ma la ừ, soxorewu ma la ñeewu ma la mais xam nga ni man yow faalewu ma la yow xam nga ni yow mii yow mii yow directeur ñii nga mais doo sama directeur donc bu ma ñëwee secrétaire bi tek ma neel na ma xaaral mi ngi ci bureau dafa am ñu muy recevoir jéem ma ko ne man ci mbokk yi la dé jaar sama dé dama respecté dama top di la xaar parce que c'est les règles de l'art art bëgguma wane ni man faalé ma la ma respecté ma top nga def lu ngay def génn di ma romba ko romba ma top té dañ ma yoni rek en tant que rak ñu yoni ma pour ma dem jël ben ration alimentaire ngir say doom ya nga bayi fé nga commencé di dem woy ma ñëw jóg ñëw ci yow gis la nga taxaw nga ñëw ci yaw waaw tons waaye man de kii moom la noonu quoi pour affaire ration bi pour nga jox ko ration non non mooy bu ma taxaw daa toog taxawel ne rek taxawel ne toogal fee ba ca kat ba ma pare. <laughs> mais journal bu ma jël journal dama doon lire journal ah parce que dama toog yor ñu teg si table ay jour journal bi laa ko pëgg ndax nii taxaw di xool ko xool mais mais kii kii mooy kan wala kii dafa dof wala xamul ni man ne ko waaye yow. ne ko da dama la fanga na taxaw ne yow boo boo bëggee monument nga wuti quoi ba du ma sa monument de waaye yow tu te prends pour qui waaye nag për génn secrétaire ñëpp jóg journal bi laa fëgg ci kanam bi dëgg na waaye yow kañ nga fuy yow nga foog ni milliards yi gars yi leen cogg ma du ma nit yi cogg ay du ma cogg de du ma cogg gars yi sa yéen fu dëmm yooyu ngeen di def nonu pour mbokk yi ñëw fi di chanter bor louange la di marché taal yeeg yow ban bokk ma ci de journal bi laa fëgg maamam dëgg wan ko ginnaaw mu nga naan ma toogal xaar ba ba ma pare yow tu te prends pour qui espèce d'imbécile hmm? arriviste oh mais waay hmm. mais dafa tiit parce que foofu dafay jéem a ngand ngandul bu génnee ka ay buur ko nu dafa daw jël otoom laa la wax jiitu ma moo ma jiitu gaarle jiitu boobu sama maama ngi dund ndeysaan ku jur sama yaay mu fële moo ma jiitu gaale gaale la ma jiitu gaale ak otoom dugg dafa tiit daw génn ñëw boole ma foofu yëpp ci biir gàlle bi boobu ñëwaguma ma nekk ci car rapide yi njaga njaayi car rapide ba yegsi ñëw fekk ko mu toog di fu ñaaru dama ko ci kanamu ay ay agent am ak toroxal yooyu dama ko toroxal ma ñëwee waaye moo réew yow loo def fële ma ne non <laughs> amul may wax waaw yow yaa ma ni ma dem di jëli ravitaay ma ñëw fekk ko foofu mu romb ma rombaat secrétaire bi teg ma fa ma toog di xaar plus d'une heure de temps deux heures de temps ñu ne ko kii ma ñëw taxaw mu taxaw nii deful dara ma ñëw di wax ak moom mu naa ma ay demal toog xaar bañ woolaat ñooñu ma ne mais kan la fuy nii kii xam man ñëf maamoom journal bi man maa ko def yow moom xam nga loo kii tax bii nga koy yónni man leen man je m'en fous lu kii day wër di ñu ñu fay dem di ko tagg ay di tagg ay baaxu maam ak man je m'en fous kii faalo ma ko waaw yow kii mooy kan muy puñaaral mu xool noonu la ma bàyyi ko ma génn dem sama yoon. nee na lijjanti leen seen biir yéen gis nga bañkat day yàgg loolu dund la loolu ci deret la man mënu ma comprendre ay nit di cogg ay milliardaires dàqe leen di leen maral di leen woy seen baaxumaam yi mais gars yi gëmuñu kenn Cheikh Amar noonu lañ ko defoon anamu tey bu jógaatoon léegi gaa yi ñëw Cheikh Amar fu mu taxawoon nga gis benn Paco Jackson bu taxaw benn lu mu tëddee ci seen woykat boobu noonu. bu nekk Rufisque dox boobu ñëw taxaw gars yi ñëw taxaw oui def Cheikh oui Cheikh moom lu Cheikh wax ñu mbëkk <laughs> daa jëf Cheikh ak saa Cheikh jërëjëf Cheikh Cheikh du seen morom Cheikh Amar Marwa Amar waay Amar waay Cheikh ne ñàkk na ñu ne nii ñett wuu ñëw nii lañ def di taw wuy mel ni Cheikh daa daa tax ay po ñoom Mame Ngor Diazaka daw ñoom ci jaw Fall Jackson Five daw ñoom ñëpp daw lu rek bàyyi ko fa comme ku takk comme ku diwoo day Cheikh Amar mel ni ku diwoo day wéet ci boppam toog ñi wër keneen nag ay yam ay weñ lañ ay weñu duus lañ ay weñu duus fu tooy ñu takk weñu duus day rek la ñuy wër ay weñu duus day rek la ñuy wër du ñu nit moo tax boo taxawee ni ñu lay tagg da nga war a ragal da war a ragal da war a moytu sénégalais yi lay wër di tagg moytul moytul billaay wallaay booboo yaay doon yàlla yaay doon yenn jamono ji ñëpp ñëpp a daw Cheikh Amar bàyyiwuñ ko de ay dëmb lañ ñu ngi nii taxaw ci bunt bi di yéenu di xool ah Aliou mi ngi jugaat na ci projet de jamono ji dégg naa ne mi ngi jéem a xool nu laale pétrole beeg gaz bi bu Cheikh Amar commencé woon poche yi ñu gis commencé di di duufaat rek ñu ne fure dugg <laughs> Amar Amar nee na Amar Amar ah bàyyiwuñ de ñu ah moom kay xamoon nañ ni sa sa nday liggéey na ko sa kër bàyyi ah amaar kay lii moom yàgg nañ laa ñaanal de ñun ñu gis yëpp new ñu fi woon yëpp ñu ci ñaan yi maa la doon maa la non ay dëmm lañ dëmm ay nooxoor booy wër nooxoor rek jàppal Sénégal noonu noonu daje ay nooxoor lañ ay dëmm yoo xam ne yàlla ñu ñu topp gars gëmuñu nekk ci Macky Sall ni na ay Macky Sall ko de alalam la ñuy wër xaalis bi lañuy ñuy wër billaay wallaay duñu nit <coughs> xamu leen ko sax waaw Cheikh Amar taaliba Serigne Saalo Cheikh Amar Rangam Ba pare nañ ci pare nañ ci moom de nekk nii pare nañ teg nañ ko ne na ne yàq bu naqari di xool keneen ña nga ca ñeneen xam nga chaque génération wala chaque chaque temps day am ay milliardaire chaque moment man jamono jii nii kenn wooyu ma mais man milliardaire laay doona ah. kenn wooyu ma nag maa ngi xaar ba bés bu samay milliard commencé dugg ba kenn jege ma ba kenn rek naan ma ay sama ma reyoon gaynde wala sa fa don ñay ba ma daxaar sa maam doon ma ma ngay xaar xam ne ni kenn woyuma ma waxe sax ñu ay tof la ngi wérul way tof la waay doxati na yamba de na na sàngara de fu ne ni gisuma kenn awma ma jamono ji awma ma benn géwél gisuma kenn ku may tag ma ngi xaar nak ba sama milliard dugg ci ba kenn taxaw o non de Dieu justice moo ñu atte lo la nok noq ba la ndax justice nañu àtte ma xaar rek ba kan taxaw naan ay sa maama nangamoon wala sa nijaay nangamoon wala sa compagnie fi nangamoon ba ma taxaar sa maam nga xam gëmuñu dara dara gëmuñu ko ngay gis ni moom mooy mooy li ma la doon wax rek ay mooy ñoom ñoom mbay peex ak ay ñoom ga gars yi nga xam dañuy taxawaalu rek taxawaalu rek taxawaalu rek taxawaalu kaa leen naan lewal waay kaa leen naan lewal get suñuy son Sénégal xam leen ni Faye Sall ko kii waaye yéen nag man xam lu ma jaaxal yéen nan ngeen di nan ngeen di amee jabar seen jabar yi accaparé lépp ngeen bàyyi seen côté seen côté yaay bàyyi seen côté bàyyi yi dem farok seen jabar yi complètement waaye mais loolu tam war bugg naa ñu lijjanti ko de góoru Sénégal lool lan moo leen ci xiir boo leen takkee jabar bàyyi seen nday bu leen jur bu leen nampal bàyyi seen baay bàyyi seen mbokki ndey ak baay topp seen jabar ja mu mel ni ku leen takk buum ci bakkan di leen xëcc lu famille seen famille jabar ji bëgg rek ngir nekkal ko ci seen seen frères yi di chômer seen sœurs di chômer seen cousines yi di chômer seen cousins di chômer mais ñoom seen frère frère jabar ja lépp baax ba ay xaritu jabar ji sax dañu am liggéey loolu leen yor lépp jox leen ko te loolu lu tax ma wax loolu xam naa ko ndax damay ami mbokk yoo xam ne même chose yor naa mbokk boo xam ni moom ci boppam fañ koy doog a fal mu jël gaa yëpp yi nekk ci si euh, famille yi bu ne mujj am lu mu la jox jëlal lii jëlal lii jëlal laa jamono jooju amul jabar dafa takk jabar rek nangu lépp dañoo xëy rek gaa yi fu ñu dem di liggéey jëlee leen non euh, euh, éliminer lañ leen changé nañ leen kenn ci sama gaa yi ñëw koo xam ne maa ko ci dugaloon ñëw ne waaw mais kañ man dama demoon liggéey tey gars yi na ma ñun jëlatuñ ñu quoi pare nañu ma ne non. ma woo sama mbokk bi allo waaw sa euh, waay tey dafa demoon liggéey ñu ne ko mu ne non non non instant dañoo arrêté liggéey bi quoi dañoo arrêté liggéey bi dañ nekk di réformer affaire dëggal sax dañ nekk di réformer waat affaire yi ndekete yoo jabar ju mu takk dafa jël lépp lu ma joxoon mbokk ya dénk ko jabar ja dabar ja dàq ñu bu neewoon yëpp ci ay mbokkam jël moom ay mbokkam moom moom jabar ji jël ay mbokkam moom ba jël waa koñam ba jël ay xarit <laughs> xaritam yéeg mbokkam yéeg waa koñam yëpp dàq nga ñëw ci sa mbokk nag waa mais man yow dama doon liggéey mais dàq nañ ma dem non dañ nekk di mais mais tuuti rek bul yàkkamti dañu nekk di réformer le système après dañ leen woowaat ba nii ba mus ñu leen woo jabar ji moo ko aakimu ak famille am ya ñu seen ja mbokk bàyyi bàyyi seen mbokk yaay bàyyi lépp topp mais loolu tamit sa waaye loolu tamit loolu loolu loolu ban feebar la feebar la ngeen jàppale leen ma ci xam ne bon du ngeen ma ci mun a jàppale Hmm? ya ban feebar la dañoo ragal seen jabar yi de waaw ah non du jigéen yi rek baye deugal dëggal ki naan jigeni yu bon du jigéen yu bon nak baye len jigéen yi ngeen kan di sikkal nak du jigéen yu bon de déedéet man mom nanguma ma mom moom defan defaan du jigéen yee bon déedéet góor bi wax len ci góor gi du jigéen bee bon c'est ah, l'amour quoi l'amour mom mom non la mel dal l'amour mom ñe kon l'amour day am victime am ki quoi am euh, oppresseur day am ko xamne ne mom moy gagner ak kuy perte l'amour kay <laughs> l'amour da fara tollu mais l'amour kay ki waru perte kay gagner famille famille jigen ba mom gagner sa famille nday ak sa famille bayi yi la jur perte lool moy sa l'amour yalla ñu yalla mussel ci l'amour bobu yalla ñu yalla mussel ci l'amour bobu hmm man dama yaakaar ni sa jigéen ji mooy sëy tolloo sax nangu naa ko ñu tolloo la affaire yi sax quoi mais takk jabar rek jël lépp lu nga joxoon sa famille nangu ko jox sa jabar sa jabar sa jabar jox yi mbokkam moom tamit sa mbokk mi nekk seen ja xoolal maram fay rek maram fay benn mbokkam sëmewul de ñi ngi seen jaam muñ nekk ci kii ñi <laughs> yore ñi ngi ñi ngi ñi ngi dund ñi ngi dund voilà eh, sama gars ah, à bientôt incha allah de toute façon